bismillah arrahman arrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahaabatihi al-ghurril mayaamiin wa ala xayri xadiimihi dil hablil matiin wa ala man iqtafa aathaarahum ilaa yawmi ddiin bokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nu nekk waaye di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi nuy soobu ndax xam ngeen tey mooy guddi laylatul xadar ci buñ ko nattee ci tënk bi Sëñ Tuubaa waxoon kon tey ci guddi ajjuma gi nu nekk mooy guddik laylatul xadar muy guddi goo xam ne guddi la gu gu gu màgg gu làmboo ngëneel yu bari ndax sunu Boroom nee na lay laylatul xadri xayru min alfi shahr nee na guddi laylatul xadar moo gën junni weer junni weer yooyu jaamu yàlla sunu Boroom nangu jaamu ga génn guddi gi yee ko gën nga màggal ko junni weer cim natt mi ngi toll ci juróom ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer ndax kenn cun mën naa mën naa mën mën na mën naa assuré dinaa dund lu toll noonu du kenn ci noonu kon génn gu dugg leen soo ci jaamu yàlla sunu boom nangu ko dana ko tolloo leeg ku dund lu toll noonu ko yàlla te jaamu yàlla sunu boom nangu ko kon googu guddi bu màgg la suñu ba wax ne guddi googu malaaka yépp dañuy wàcc ànd ak sinda jibril di ñaanal jullit yi di leen waxal amin ci seeni ñaan ba fajar ñu dellu tandasul mala tandasul malaaykatu war ruux tandasul malaayka mooy malaayka dañu wër dañu wàcc war ruux ak jibril ci seen digg la borom salaamun hiya xataa matla'il fajri di ñaanal julli ni jàmm di ñaanal xéewal di waxal am seen ñaan ba fajar ñu dellu kon bokk nañ ko fonk baax guddi gi guddi gi guddi gu màgg la ëpp naa nelaw ku man daal nga def ay def ay salaatu ala nabi jàng alxuraan ci mujj émission sax ñaan gi ñu indi mooy ñaan gi yu sax digle woon joxoon soxna ay si ne ko moo gën ci ñi di ko wax ci guddi gi laylatul xadar mooy doon ñaanuk bis bi tey suñu àgg ci mujj émission bi lañ lañ lañ lañ koy xamle waaye daa mat naa màggal mat naa fonk eh, ndax loo xam ne bi at mu jot benn nga ko ci am kon suñ la mi ngi nii kon war nga koo jàpp bu baax baax a baax a baax démb ni ñu ngi mujjoon ak yéen ci julli yi ñu ngi mujjoone yéen ci julli sunna yi man a julli ñu sopp yi ji tisbaar takkusaan bu ñu la nga jàng ba waxoon timis li nga ciy jàng ñaar rakaa yu sës ci timis su dee kuy julli ñeent rakaa la ñaar rakaa yu njëkk nanaal da ngay jàng faatiha ak kaafiruun bu njëkk bi rakaa ñaar ak lixlaas soo ci teg ñaar rakaa nga jàng faatiha ayatul kursi yi inna ansalnaahu juróom benn lixlaas fàllaxi naasi ca rakka bu ne ci ñaar soo noppee ñaar nga tàllal say loxo nga def fukki saatu al nabi saatu jul ci yoon saat fukki yoon soo noppee nga fi xayaati wa inda wafaati wa ba'da mamati innaka ala kulli shay'in Sëñ Tuubaa nee ku saxal loolu da nga faatuwaale yàlla xam nga faatuwaale ngëm yàlla lu jafe-jafe-jafe la ne ku saxal gannaaw sunna timis ku nekk nga def ñaar rakka yooyu yi jàng ci rakka bu ne faatiha benn yoon ayatul si benn yoon inna ansalnaahu benn yoon fàllaxi juróom eh, lixlaas juróom benn yoon fàllaxi naas lu ci ne benn yoon boo sëlmee nga def salaatu ala nabi fukki yoon tàll say loxo ne allahumma inni astawdiuka diini fa xafadhu alayya fi xayaati wa inda wafaati wa baada mamaati innaka ala kulli shay'in qadir naa ku ko saxal rek da nga faatuwaale gëm yàlla incha allah soo ci tegaat ñaan rakaa ñaan rakaa ngir juróom benn nag jàng ko saxal dañ la bindal jaam yàlla fukki ñaar bu dee gannaaw gi nag nga nga fukki rakka ak ñaar ak witar fukki rakka yi fekkee ko man alxuraan nga rakka bi nga ci jàng ab rubu ab rubu ni ñu ko jàng ni ñu ko def ci surtout ni ko defee ci saa ci ci weeru ramadan lu weeru ramadan rek ñu baax ñoom dañ ko saxal jamono jëpp ñu baax ñi dañ ko saxal guddi gu ne nañ def xiyaamu layli rakka bu ne ab rubu saa bu kaamil bi àggee ñu tàmbaliwaat dëkki ko dëkki ko faawu nga xam bi seet nga def fukki rakka yoo xam ne rakka bu nekk jàng ca da nga jàng rubon muy fukki rakka nga teg kenn ànd safa witar mu jeex su dee ku mënul alxuraan nag na jàngal ko soobul mën na bu ko neexee rakka mu jàng ci fukki lixlaas mu jàng ci fukki lixlaas ñaar mbaa rakka bu mu jàng ci juróom-ñaari lixlaas mbaa lu ko soob rek te saxal ko moom it fukki rakka ak ñaari bisu set ak witar bañ koo yamale ci koor rek waaye dëkk ko bu faw kon yooyu yu ñu sopp la ba ca topp nag mooy julli sàbbaal julli sàbbaal ku ko def say bàkkaar bu tolloon ni duusi géej gi géej gi ci bari mbaam bari ba toll ni toqi doxin taw yi mbaam mu bare na xobi garab yi ci àdduna suñ boom dana la jeg lépp moo tax yonent bi saa su newoon ku ko mën def bisu set ko def ku ko mënut nga di ko def ayu bis benn yoon mooy ajuma june benn yoon ku ko nga di ko def weer wu ne benn yoon ku ko mënul at mu ne benn yoon ku ko mënul nga def ko benn yoon ci sa dund def ko benn yoon ci sag dund loolu yonent bi sallallahu waxoon julli saabaan nii lañ ko jullee ñeent rakaa lay doon dangay kàbbar kàbbaru xarmal jàng faatiha ko saar teg ca subhaanallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar wax ko fukki yoon ak juróom door a rukon soo rukon ay nga wax ko fukki yoon ak juróom ci biir rukon bi fukki yoon fukki yoon ci rukon bi sigi taxaw wax ko fukki yoon ci taxawaay bi daldi sujjóot wax ko fukki yoon ci sujjóot bi sigi toog wax ko fukki yoon ci toogaay bi sujjóot sujjóotu ñaari waxaat ko fukki yoon siggi waat ko waxaat ko fukki yoon door jugaat taxawaay bu ne fukki yoonu juróom la yeneen ponk yi bu ci nekk fukki yoon kon boo taxawaat da ngay da ngay jàngat Fatiha ko sar jàngat fukki yoon ak juróom door rukkoo def na nga defoon ba ci rakkaam ñaar bu la neexee nga sëlmal bu la neexee nga def defaat ñaar bu ne neexee nga nga jokkale ko bu la nga jokkale ñeent rakaa yi bu la neexee nga sëlmal ci ñaar yi jug defaat ñaar ñaar yëpp dagan na su noppee nag am na ñaan guñ cay teg boo tollee ci taay boo taaya ba noppi ñaan gooy ñaan doora doora sëlmal dafa xaw a gudd waaye nag tasaare woon naa ko defoon naa ko ay kayit bindoon naa ko ci kayit tasaare ko si euh, Mahamadou Sey mee ko gis walla euh, palaas yu wër jumaa ji am na ci ñu ko am soo ne soo ne ñaanu julli sàbbaal dañ ko xam moom ngay jàng doora sëlmal ci jotaay bu mujj bi noonu lañ ko def boo ko defee ba noppi nag say bàkkaar suñu boobu jégal na ko lépp ba mu jeex moo tax ma mat di faral di def soo neexee nag nga teg ca wala hawla wala quwwata illa billah soo soo neexee yem rek foofu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallahu akbar soo neexee yem ci soo neexee teg ca wala hawla wala quwwata illa billahi bu la soobee rek nag soo neexee yem ci wallahu akbar ji rek kon noonu la ñuy jullee jullig sàbbal su ko defee nag euh, yeneen yi des muy euh, taamu taamu nañ daal di ko di ko di ko def ci ci bis boo ko gomee bis seet benn yoon doo ko mënul semaine bu ne soo ko mën nag gan ngeen jàggaat na weer wu nekk soo ko mënee def daal mooy li gën saa su ndajaate kon soo ko mën at mu ne benn soo ko mën nga def ko benn ci sa dund waaye am solo la lu ëpp a ñàkk def mayees na nag guddi mayees na ko def ko bëccëg waxtu wala neex rek waxtu ko dagan naafile mayees na ko caa def amul waxtu soo neexee def ko bëccëg soo neexee def ko guddi njàng soo neexee biral soo neexee yàllu koor gii nag moom surtout moom ci la ci la ci la gën a mat mat di defe ndax koor dafa barkeel naafile koor yi nag mooy itam yu mat a fonkal mooy yu tuddee taraawiix muy naafile yi ñuy def ci jàkka yi nga fukki rakkaa ak ñett mooy itam ñettee mooy safa witar fukki bu ci nekk ab rubax ne ni ma ko waxee woon léegi su ko mën na nga jàng saar wala neex rek alam tara ak naas am nañu ko def saar wu ne eh, rakka ba ne ab aw saar su ko dee alam tara ba naas fukki fukki fukki saar la muy fukki rakkaa yi nga def safa witar mu am na yeneen julli yoo xam ne yu ñu sopp la lu mel ni jullig tam xarit ak jullig àllarba ji mujj ci weeru màggal gi ak sujoodi alxuraan ñaar ya nag am na ñu koy ñu koy diŋat waaye man lépp lu Sëñ Tuubaa indi doomi Sëñ Tuubaa indi ko rek man doyloo naa te Sëñ Son bi dina ko ci téereem bi àddina yatu sana boobu Sëñ Tuubaa def itam eh, def naa Sëñ def mooy te ñëw na ca muy jullik fukkeelu tam xarit maanaam jullik fukkeelu yow ma Ashura luñ sopp la lool di ñeenti rakka rakka bu nga jàng ca faatiha ak lixlaas lixlaas fukki yoon ak juróom faatiha ak lixlaas fukki yoon ak juróom moo ngi julli moo ngi wax ci ñeenti rakka yépp teg ña ñaan yi ci teg teg xasbunallaahu wa ni'mal wakiilu juróom-ñaar fukki yoon yàgg ñaan nga ci teg juróom-ñaari yoon yooyu waaye jëmbi gën a julli rek la wax moo tax ñu yem ci julli gi rek julli gi ñeent noonu lañ ko defee muy bés xam ne sopp nañ ca raay ca bopp jirim Sëñ Tuubaa lim na ko fi yawmi ashura ashru muttasil beexas ndataani wala xa fadlu nuqil sum sallisil sura aliman ud waktaxil rësal yatay mim sa tasaddax waxtasil wassin alal ayaali xallim zufara wa suratu ixlaas alfan taqra noonu la ko waxee wax wax na ko ci yeneen wax yi ca masal ko dina ñëw na ca waaye dafa yoo xam ne nii ma nii ma ko jàng ni la ko ca waxee ñu mokkale ko noonu may sum salli sil zur aliman sum mooy nanga ko woor bis ba woor ko sunna la sax moom woor ko sunna salli mooy nang ca julli julli googu gu mel ni googu ñu waxoon sil mooy nang ca jokk sag bokk jokk ci bokk lu ñu ca sopp la zur aaliman nang ca siyaare boroom xam-xam hut nang ca seeti ku wér di wax taxil nang ca tusngalu tusngalu lu ñu ca sopp la rësal yatiimim sax nang ca raay bu fu jirim tasaddax nang ca sarxe waxta si nang ca sangu fa càngaay lu mel ni càngaay lu janaba wasi alal ayal na nga ca yaatal sa njaboot ci lekk ak naan na nga lay ci teral xallim zufra na nga ca lawi say weex wa surat ila ixlaas alfan taqara ci jàng eh, saarul ixlaas junni yoon yooyu ñu soppale ci bisu fukkeelu bis ci tamxarit mu yow ma kon mooy itam lu lu lu wér la ndax Sëñ Tuubaa indi na ko borom xam-xam yu bari indi seen bi nëb ci téereem bi ak jokk mbokk kon kon kon kon waaye kon yooyu li mën naa li mën naa fukki fukki ak ñaar yëpp yu ci def kon li mën naa ko ni ko noonu àllarba ji mujj ci diggu tabaski digg diggu gàmmu mi weeru màggal gi mën nañ ko waaye noonu gannaaw digg ñaar la te booy xool weer yi weer wu nekk dañ ko tuddee la ca gën a fés koor liñ ci war a tax ñu tuddee ko koor kori liñ ci waree tax ñu tuddee ko wari diggi dara xewu ca moo tax ñu ne diggi rek tabaski lañ cee def xew-xew tabaski moo tax ñu tuddee ko tabaski tamxarit bis tamxarit mooy la ca gën a feetliku moo tax ñu tuddee weeru tamxarit gàmm la ca gàmm nekk tax ñu tuddee weeru weeru gàmm gannaaw nag weeru màggal moom am na lu xew bu ca fis muy màggal te weneen digg am na kon jàpp naa mayees na ko tuddee weeru màggal gi rek parce que day bu ñu nee digg moom dootu jar nga ne digg Tabaski dañu daal di xam ne digg rek mooy weer wee kon yaa ca des nag amuñu xew-xew mu ñu daal koy dàkkante ci yees rek rakki gàmm rakkaati gàmm maamu koor rek ndeyu koor kon diggu Tabaski man diggu koor yi ma Tabaski mën nañu wax ne diggu tamxarit mën na weeru màggal gi rek mu mu mu jeex man boog moom laa ko tudde àllarba ci ci mujj ja ci mujj dañuy wax ne balaa yu bare bare bare da ciy wàcc ci àdduna ba nga xamoon ne ku jàng ku ca julli julli gi ñaan ñaan yi jàng incha allah da nga mucc ca balaa yooyee moom la wolof yi tudde àllarbay kare mooy itam ñeenti rakka lañ ci julli lu ñu sopp la rakka bu nekk faatiha ak inna a'taynaaka al kawsara fukki yoon ak juróom-ñaar lixlaas juróomi yoon fàllaxi ak naasu ci ne benn yoon mën na ci def ci rakka bu nekk julli kon day muste ci ay balaa balaa at mi incha allah danga ci mucc mu den sujjóotu jàng alxuraan moom sunna la sujjóotu jàng mooy ba alxuraan dafa am fukki barab ak benn yoo xam ne bari bi sujjóot la saa boo fa àggee dangay war a sujjóot bu dul waxtu wuñ si ba naafi naafila wuñ tere ndax xam nga sujjóot boobu naafila la la te bu dee waxtu wuñ naafi la na kon doo ko sujjóot danga danga wax baati baati baati baaxee saleet jàll jàll soo ak di sujjóot ngeen subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala akbar ja ak wee sa njàng bu dee foo xam ne jamono juñ du sujjóot wala mu fekk la foo munta sujoote muy fukki sujoot ak benn ca mujjug laaraaf baatu yasjuduun nga xam ne mooy jeexal sootu sootu laaraaf sootu laaraaf foo mooy sujoot mu njëkk foofu nga sujoote sootu raadi waaye ba ca bil xuduyu wal asaali ci njaal beenu saari bala ngay àgg ci af ma yàllamu foofu may mooy ñaari lu sujjóot bi boo fa tolli nga nga sujjóot maa yoomuroona ca saaru naxli may ab sujjóotam baatu xushuan ca saatu suratul isra may ab sujjóotam wa bukkiyan ca maryama mooy sujjóot ba saaru xajji maa yashaa'u mooy mooy mooy mooy mooy ba furxaan nufooran mooy sujjóot ba ca namli al arshil azim mooy sujjóot ba ca sajda laa yastakbiruuna mooy sujjóot ba suurta saat wa anaaba mooy mooy sujjóot ba su dee fusilat iyaahu taabuduuna mooy mooy mooy mooy mooy sujjóot ba mooy bi ci mujj kon fukki barab ak ñeent benn yooyu muy fukki sujjóot mooy boo ca àgg rek da ngaa war a sujjóot rot sujjóot ne allahu akbar sujjóot sàbbaal yàlla man sàbba goo neex man nga ne subhaana man laa taaxudu sinatun wala nawm man laa taaxudu sinatun wala nawm maa tudd seetlu yàlla mi nga xam ne du nelaw te du gëmmintu mukk booy siggi nga ne allahu akbar dañ ko sopp boo waxut allahu akbar teewul dana wér dana wér euh, su ko defee nag kon kabar bu allahu akbar ji moom kum sob la rek soo neexee def ko soo neexee bañ ko ca boole waaye def gaa gën nag def ko moo gën bàyyi ko sujjóot nag fu mu la mën a fekk donte daa fekk ci julli moo xam julli naafila moo xam julli farta la boo ci àggee da ngay sujjóot soo julli julli farta baag ci sujjóot dangay ngay ros sujjóot jóg jàngat dooroo ko su dee bu fekkente ne day comme comme nga xam ne laxaraaf day mel ni foofa la la ñaari xisab ak ndis yu jeexe wala boog teg na tuuti sax def naa kamaa xaraja rabbuka bu ko defee ko da da da ku ci àgg da ngay rot sujjóot fekkee da nga fa bëggoon yam da nga rot sujjóot jógaat jàng tuut ci sóotu sóotu lanfaal door ru ko àggale kon saa ba jege da ngay daal root sujjóot jógaat ko kon de njàng moo xam nag julli julli farata boo ci jàngee saaru am sujjóot ba caagi da ngay sujjóot am na nag foo xam ne baati sajid dafa nekk te deesu leen sujjóot ci ngirum Malik yooyu duñ leen limaale waaye sujjóot bi nag euh, kon euh, kon neenaal di des ko sujjóot ci waxtu yi si naafila mooy gannaaw takkusaan ba keroog ñuy julli timis ba noppi ak gannaaw julli suba ba keroog jant bi di yëkkati ko yeneen sujjóot sujjóot yi ci alxuraan nag des des leen sujjóot muy ñeent ñeent sujjóot des leen sujjóot mu ñaareelu xaj ji xaj ji ca mujj ga ci benn sujjóot des yi sujjóot wa naj mi sujjóot bañ fa màndargaal dees ko sujjóot ba nekk leen si xaax itam dees ko sujjóot ñaareelu xaj ji naj mi ak bi nekk leen si xaax hmm, kon yooyu dees leen sujjóot ak suurtu xalam suurtu xalam itam am na am na sujjóot bu fa nekk mooy itam dees ko sujjóot mooy ñeent yooyu ma mujj nag liqaam jàngale woon naa ko dama ci dolli nodd nodd fàttaliwaat liqaam nodd it dafa niru lu yomb te jafe nodd neew naa liqaam baat yëpp da indi masque bu dee nodd nag moom da ngay wax waqf mooy daaneel yëpp nga maas néeg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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah daal yëkkatiwaat ca kaw nag baxaat baamuwaat ashhadu an laa ilaaha illallaah ñaari yoon noddu baat yëpp ñaari yoon baamu liqaam nag baat bu ne lu dul allahu akbar yi moytu tax ñaa allahu akbar dee su wax soo ne allah dangaa mel ni koy laaj ndax mooy ndax yàlla yàlla ndax nangam te du laaj tudd yàlla la kàbbar la allahu akbar ab yàq la xanaa yàq la ne allahu toog lu yàgg doon ne akbar it ba tey deesu ko def man ngaa noyyi ci diggante bi waaye buñ soree nag allahu akbar ashhadu an laa dees ko wax ashhadu an ashhadu al ngay wax ashhadu alla ilaha illallah mooy da ngay idgham gi ca lam ga ashhadu anna muhammadan dees ko wax muhammadar muhammadar rasulullah hayya ala salaa hayya ala salaa doo ko salaa kon da dagg aw xaraf muy muy xë muy ëh ga kanam da nga ko tuddee hayya ala salaa hayya ala falaa yi des ko hayya ala falaax ak xaaguñ guñ maas nekk moo ci mujj danga nga koy tudd hayya ala falaax allah ko laa ilaha illallah yi des ko laa dafa am ëh ci mujj ga sopp nañ kuy nodd ngay toppale ma bu ne bu akbar nga ne akbar su ne ashhadu an laa ilaha illallah bu koy wax ndànk su ne ashhadu muhammadu rasulullah nga ne bu koy yëkkati ci waat ceexno bu ne ashhadu an laa ilaha illallah nga ne raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan allahu akbar ji kon bu ashhadu an laa ilaaha ko ca kaw ci ñaareel bi ndax da ko njëkk a wax ci suuf doo yëkkati kàddu wax ko ci nga nga nga nga marhaban bi habibi wa xalili wa xurrati ayni sayidina muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su ne ashadu an la eh, hayya ala salaa nga ne marhaban bil xaa'ilina adalan marhaban bi bi salaati ahlan wa sahlan bu ne hayya ala al falaax nga ne laa xawla wala quwwata illa billahi alil azim su dee suba su ne assalaatu xayru min an nawmi nga ne saddaqta wa barirta wa ahsanta su ne laa ilaha illallah nga ne wahdahu laa sharika lahu mulku wa lahu ala kulli shay'in qadir ca teg na allahumma allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah aati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadila wa darajata rafiica wa bacathu maqaaman mahmuudan allati wa'adtahu innaka laa tuxlifu l-miicaad su daanee nga teg ca kàddu yooyu mooy lu ñu sopp la lool kon loolu mooy nodd dañ caa nag ki koy def na doon ko xam waxtu te doon ko xumb baat te neexle ko saat nañ ca mu doon ko laab it te taxaw ci lu yëkkati ko sopp nañ ko kon su ko defee kon bokk yi mën nañoo kon taxaw foofu tey in leen ñaanu bisa gannaaw tey teyalu guddi laylatul xadar nag dañ leen indi kon ñaanu laylatul xadar soxna Aïcha radiallahu anha nee na xultu yaa rasulallah araayta in alimtu aya laylatin laylatal xadr ma aqulu fiha xaala xuuli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni soxna Aysa day na yow yaa rasulallah yow yàlla yónni su fekkoon xam naa bisu laylatul xadr maanaam xam naa ne guddi ba asama xam la laa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni na ko ñëpp jàpp tey kon guddik tey jii baat yooyu lañ ci lañ ciy jàng loo gën a mën a baril yoru sa kurus loo ca man a wax lu mu bari bari du doy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ma yosun borom day ab ab ab jéggalekan nga te ko bëggu jéggal nga kon nag jéggal ma allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa kon mooy tey la guddi leen xadar kon loolu lañ ci ñaan ñëw na ci xadisu bis bi jeexale ko xadis yi saa su dafa wax ca dafa wax ne salullaha la afiyat fi dunya wal axirati wa fi lafzi salullaha al afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al yaqini xayra min al afiya rawahu ahmad salaasu nee dee leen ñaan yàlla jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira ci benn riwaay ma ne dee leen ñaan yàlla njëggal ak jàmm ndax gannaaw yaqin kat joxuñu nit lu lu gën jàmm nit joxee su ko lu gën jàmm gannaaw bu amee yaqin ba noppi joxe su ko lu gën jàmm mu ne kon nag dee leen ñaan yàlla jàmm ak njëggal jàmmi àdduna ak juj àllaaxira kon jàmm mat na ñaan bu baax a baax yàlla na suñu defal jàmm defal ko waa Sénégal defal ko àdduna sépp Eh, suñu moom xiin ci njub te saxal def dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul nangul suñu ñaan nangul suñu taalibe dox leen di daje insha Allah suba ci waxtu di ñaan li gën ci nun yàlla ko suñu bon defal dëppal ko li nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa